Action pour l'espoir, Alhamdulillah, nous lançons le puits Babelwed numéro 4 après les trois premiers, machallah de Babelwed. Nous en sommes au quatrième et euh, ce puits vient juste de démarrer euh, il y a quelques jours, donc on est à 1 mètre seulement de profondeur. Pourquoi le choix ici Comme d'habitude, les villageois ont constaté que les anciens puits qui était dans la zone euh, avait plus de chances euh, de donner de l'eau agréable à boire et potable euh, sur cette place-là plutôt qu'à l'intérieur du village qui se trouve de l'autre côté. C'est pour ça qu'il a été implanté ici. Et donc du coup, le village est de l'autre côté. On ira là-bas pour rencontrer les, populations. Comme une comme ay robina muy ndox mi neexul kon wa dëkk bi soxla nañu ndox bu pour boo xam ne dañ koy naan ndox bi daal mooy jafe-jafe bi bi nga xam ne moo moom la ñu gën a soxla ndax ndox mooy dëkk dëkk dëkk balaa mën na neex rek am ndox bu baax fi ñu amee ndox ak suñu diggante ak ndox mu neex mi mot na ay sept kilomètres fi ñuy wutee ndox pour naan waaye fu ñuy roote moom comme ñoom ni koy waxee rek mot na sept kilomètres ñu ñu ko am ndox bu neex. fi ñuy jëlee ndox loolu mot na ndox ndoos ah, ah, ba ngeen xamul ndoos ah, dëgg ngeen tur bi. waaw sori na torop la lay it la lay yi fi nekk neexul te lu ñu ci sax bari na sama bu ñu tàkkee fas ga balaa fas ba day sonn waa dëgg day sonn ba baax waaye nu mën a ndox mu neex bu na ban mu ci mu kon jafe-jafe la bu metti boo xam ne kon wax deug projet bi kontan nañ ci ten bi kay dañuy ñaan yalla rek yalla motale ko lu bon ak jam nek ndox mu neex boko ko dal wax deug wa dëkk bi dañ ci kontan lol. ndox bi dal mo gëna nek problème bi ak machine kay machine wol bu ñu wax it jigéen gëni soxla nañ ko ndax ndax fi ñu wara wolé sori na. ak lo xamantene dal mën nañ ci yëngu dal waaw mooy nag suñu problème ndax ay jigéen yi fu ñu dem ndax toog rek bu ñu xëyee toog duñu am benn liggéeyukaay te bu ñu amoon loolu tam mu baax. am nañu jafe-jafe yeneen jafe-jafe yoo xam ne mu ngi ci dëkk bi comme exemple machine wol amuñ ko amuñ ko soxla nañu itam magasin boo xam ne dañuy deñ ci suñu bagage lu mel ni bâche euh, wala ay chaise yoo xam ne pour bu ñu amee ay gan.